yoonu mucc gi yàlla tëral saa yu ngeen déggee joololi bi taxaw leen xalaat te jéem tontu ci laaj bi gannaaw loolu mën ngeen wéy ci seen déglu juróomeelu njàngale mi aadama ak awa déggaluñu yàlla nanu baamtu nettali bi weesu benn ndax mën ngeen lim juróom-ñaari melokaani yàlla ñaar kan moo sàkk lépp li nuy gis yàlla moo sàkk lépp ñett naka la yàlla sàkkee lépp ci kàddoom ñeent lan la yàlla wax ci lépp li mu sàkk wax na ne lépp li mu sàkk baax na juróom bi yàlla sàkkee aadama ndax aadama amoon na bàkkaar déedéet amul woon bàkkaar dafa juboon juróom benn ndax aadama juboo woon na ak yàlla waaw yàlla may na aadama xel muy xalaat tey xam yàlla ak ruuguy dund ba faw mbind mu sell mi nee na ci njalben ga saar ñett aaya benn ba aaya juróom ñaar aaya ak ñeent aaya ak juróom jan nag moo gënoon muus ci rabi àll yépp yi aji sax ji sàkk noonu mën ne jigéen ja ndax yàlla wax na bu wóor ne bu leen lekk ci genn garab ci tool bi jigéen ji tontu jaan ja mën nañoo lekk ci doomi garabu tool bi waaye garab gi ci diggu tool bi yàlla nee na bu leen ci lekk bu leen ko laal sax ngir ragal a dee jaan ja ne jigéen ja mukk du ngeen dee waaye yàlla xam na ne bés bu ngeen ci lekkee seena bët dinañu ubbiku te dingeen mel ni yàlla xam lu baax ak lu bon noonu jigéen ja gis ne garab gi neex na lekk rafet na gis te mat a bëgg ngir mën a ràññee kon mu daldi wit ci doomam lekk ko mu jox ci it jëkkëram ji nekk ak moom mu lekk seeni bët daldi ubbiku ñu xam ne def nañu yaramu neen ñu daldi ràbb xobi garabu fig laxas ko ci seen ndigg ci kaw loolu yàlla aji sax ji ne jaan ja ganaaw def nga loolu alku nga ci biir rabi kër yépp ak rabi àll yépp dinga nga wattutu di lekk pënd sa giiru dund gépp dinaa def mbañeel ci sa diggante ak jigéen ji ci sa diggantey xeet ak xeetam dina toj sa bopp te di nga ko mat ci tëstën bu leen fàtte ràññee melokaani yàlla yi ci nettali bi aadama ak awa déggaluñu yàlla nettali bi mu ngi aju ci li teqale nit ñi ak yàlla ba aadama bàkkaare ndax fàttaliku ngeen ne yàlla dëkkal na aadama ci bërëb bu rafet ci àddina bu tudd toolu ajana ci toolu ajana amoon na garab yu bare ak ñam yu bare yàlla wax na aadama ne mën na lekk meññeef yi ci garab yépp waaye mënul lekk ci garabu xam lu baax ak lu bon yàlla artu ko ne bu lekkee ci doomu garabu xam lu baax ak lu bon dina dee benn bés seytaane soppaliku jaan ngir nax awa seytaane wax awa ne ko soo lekkee doomu garabu xam lu baax ak lu bon doo dee yàlla bëggul nga lekk ko ndaxte yàlla xam na ne boo ko lekkee dinga mel ni moom noonu di nga xam lu baax ak lu bon noonu awa lekk doomu garab gi jox aadama moom itam mu lekk ca gannaaw bi ñu lekkee doomu garab gi aadama ak awa xam ne yaramu neen lañu def noonu ñu jël ay xobu garab defar ca ay yére yàlla xamoon na ne aadama ak awa bàkkaar nañu ndaxte yàlla xam na lépp gannaaw loolu ñu dégg yàlla muy dox ci tool bi ñu ragal daldi làqu noonu yàlla woo adama ne ko adama adama foo nekk adama tontu ko dama la dégg ma ragal daldi làqu ndaxte yaramu neen laa def noonu yàlla laaj leen kan moo leen wax ne yaramu neen ngeen def dangeen lekk ci doomu garabu xam lu baax ak lu bon Adama tontu awa moo ma ko jox ma lekk awa tontu jaan ji moo ma nax ma lekk ci Adama ak awa bàkkaar nañu ci kanamu yàlla ndaxte déggaluñu ko Adama ak awa topp nañu iblis ba déggaluñu yàlla gannaaw bi Adama ak awa bàkkaare yàlla wax na leen liy àtte bàkkaar lii la woon atte nañu jaan ji ndaxte seytaane ci gémmiñam la waxe jaan ji dina wasutu dootul dox yàlla wax na jaan ji ne dina doon noonu awa ak askanam yàlla wax na ne benn bés askanu jigéen ji dina daan seytaane yàlla wax na ne awa dina jur ci metit ndax bàkkaaram wax na itam ne jëkkëram dina ko yilif yàlla wax aadama ne dina moolu suuf si ndax bàkkaar bi mu def ay dég ak ñox mu bon dinañu sax ci kaw suuf nit ki dina liggéey ngir dund yàlla wax na ne benn bés dinañu dee te seen yaram dinañu saxe adama ak awa defar nañu ay yére ak ay xob waaye yàlla wutal na leen ay yérey der noonu yàlla génne leen toolu àjjana ndax seen bàkkaar aadama ak awa teqalikoo nañu ak yàlla noonu yàlla teg menn malaaka mu yor jenn jaas juy tàkk ci buntu àjjana kenn mëntuloon a dellu toolu àjjana fii la nettali bi yem am na ay laaj benn lu tax yàlla bëggul nit ki xam lu bon yàlla bëgg na nit ki te am na yërmande yàlla xam na ne su nit ki xamee lu bon lu bon dina ko sànk ñaar lan la seetaane wax awa ne dina am suñu lekkee ci garabu xam lu baax ak lu bon seytaane wax na ko du ñu dee dinañu mel ni yàlla te dinañu xamal seen bopp lu baax ak lu bon seytaane nax na leen ñett ndax seytaane bëggal na aadama ak awa lu baax ak lu tax ndaxte seytaane bëggul nit ki ñeent naka la aadama ak awa bàkkaare dañu teggi kàddug yàlla juróom lan mooy bàkkaar bakar mooy bañ a déggal yàlla juróom lan la aadama ak awa def bi ñu xamee ne yaramu neen lañu def dañu rus kon defar nañu ay yére ak ay xob dañu ragal itam kon dañu làqu juróom lu tax aadama ak awa ragal yàlla gannaaw bi ñu bàkkaare ndaxte xamoon nañu ne te nañu santaane yàlla te kon dina leen daan juróom-ñett naka la ñuy seetaane di jéem a naxe dafay wax ak sunu xel dafay waxloo ay nit dafay waxloo ay rab juróom kan moo tax aadama ak awa bàkkaar ñoo bàkkaaral seen bopp dañu dégg dil yàlla te topp seytaane yàlla sàkk na aadama may ko xel muy xalaat te xam yàlla may ko ruu te itam may na aadama sañsañu dogal yoonu boppam nun itam am nañu sañ-sañu dogal suñu yoon fukk lu tax yàlla am sañsañu wax aadama awa ñu déggal ko yàlla moo leen sàkk yàlla mooleen moom yàlla def na ci ñoom cofeel fukk ak benn naka la yàlla mooloo jaan def na ko muy watatu yàlla wax na jaan ne dina doon noonu awa ak askanam fukk ak ñaar kan la yàlla dige dina ko yónni yàlla dige ne dina yónni ab sëtu awa jaare ko ci ab jigéen ab sët buy daan seytaane fukk ak ñett naka la yàlla àttee awa dina am metit balaa muy am doom jëkkëram dina ko yilif fukk ak ñeent naka la yàlla àttee aadama dina sonn balaa muy am lu mu lekk benn bés dina dee te yaramam dina dellu ci suuf fukk ak juróom lan la yàlla bëgg a wax bi mu nee nit dina dee ci saa si nit ki teqali na ak yàlla moom miy joxe dund kóllëre ak jàmm ja nekkoon ca diggante yàlla ak nit jeex na niroo nit niroo woon yàlla ba xam yàlla am cofeel ci moom di ko déggal deñ na seen xol dee na benn bés itam yaramu aadama dina dee ñépp dinañu dee ni ki sunu maam aadama su nit deewee dafay teqli ko ak yaramam ruwam dafay jóge ci yaram wi du rek ne yaramam dafay de mu jeex waaye dina dem safara ba faw fukk ak juróom lu tax yàlla nanguwul yérey xob yi aadama ak awa defar ñu ngi doon jéem a def lu neex yàlla waaye yàlla nanguwul li ñu def fukk ak juróom ci sa xalaat lu tax yàlla rey mala defal leen ay yére ca der ba loolu moo won aadama ak awane ne atte bàkkaar mooy de wan na leen itam ne yàlla bëgg na leen ba tey fukk ak juróom-ñett ndax yàlla bàyyi na aadama ak awa toog ci toolu ajana déedéet yàlla dafa sell te jub te bëggul bàkkaar mënul nekk ak bàkkaar wala bàkkaarkat fukk ak juróom-ñeent bu ñuy bàkkaar ndax war nañu ragal yàlla waaw yàlla dina àtte bàkkaar yi déggadir yàlla moo indi tiitaange ci àddina ba aadama awa bàkkaaree ba léegi tiitaange dugg na ci xolu nit ñi ñaar fukk yan tiitaange ngeen am léegi te aadama awa amuñu ko woon ci toolu àjjana jàngoro yi dee rab yu bon yi féewaloo ci diggante jëkkër ak jabaram ci diggante nit ak moromam ak yeneen ak yeneen yan melokaani yàlla lañu gis ci nettali bi ak naka lañu leen ci wone yàlla xam na lépp yàlla xamoon na ne aadama bàkkaar na yàlla xamoon na fan la aadama làqu yàlla bëggul bàkkaar yàlla àtte na nit ñi yàlla ak nit ñi teqlikoo nañu loolu moo tax yaramu nit di màggat te moo tax itam nit di dee yàlla wax na awa dinaa yokk sa metitu ëmb booy wasin ndax sa bàkkaar yàlla moolu na jaan ji yàlla moolu na suuf si gépp mbaax mu ngi jóge ci yàlla yàlla dige na ne ab sëtu awa dina doon noonu seytaane te sët boobu dina daan seytaane yàlla wutal na adama ak awa yére der yàlla dafa jub yàlla génne na aadama ak awa ci toolu àjjana ndax seen bàkkaar aadama ak awa juboo woon nañu ak yàlla laata ñuy gannaaw gi mëntuñu taxaw ci jataayu yàlla ju seel ji mënul tanxam lu bàkkaar léegi sëti aadama yépp amuñu jàmm te teqalikoo nañu ak yàlla ndax bàkkaaru aadama ab misaal ci li nu jàng su ma daggee ab car ci garab ndax car bi mën na dund déedéet ndaxte car bi ak garab gi teqalikoo nañu car bi ak xob yi dinañu dee bi aadama ak awa bàkkaare seen kóllëre ak yàlla deñ na aadama ak awa jubatuñu woon ak yàlla yàlla génne na leen toolu àjjana yaramu aadama ak awa tàmbali dee itam mel na car bi ma daggee ci garab gi ndax car bi mën na taqaat ci garab gi ngir musal boppam déedéet ndax aadama ak awa mën nañu duggaat toolu ajana ngir musal seen bopp déedéet yàlla mënul nekk ak bàkkaarkat moo tax yàlla teg na mel menn malaaka mu yor jenn jaasi juy tàkk ci buntu ajana ndax mën nañu mucc ci sunuy pexey bopp déedéet beneen yoon dinañ waxtaan ci bi yàlla gàntoo saraxu kayin